يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي خبلا يا ربنا بصر خليلك الحبيب بخدمتي وكل سالخ لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مسبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خلي الأيادي الإسام بلا أسن ولا جوم ولا خرر ولا هدم ولا بلن ولا درر بلا سن ولا جوم ولا خرر ولا هدم ولا بلن ولا درر بلا سم ولا جوم ولا خرر ولا هدم ولا بلن ولا درر يا من لوجهك الكريم الكتاب كتبت حبلي اسمدا من الكتاب في كل شيء سائرا وباتنا وانفبي يا مالك المواتنا وجل نفعا لسوي الامصار وخير يا واهب الانصار يا سل اراضي وسما سل بلا حد على من خدمتي قد خبلا سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل وسلم عليه واغفر يا غفار لخارئي وألن به نفار وجل حروب سنسام سرمدا بسارة عزيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آلي ومن نمي إليه وارضى به قبل توجه اللئيم إلى سوى خارئي أنت المحين واجلب لمن يقرأ خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد واب لمن يقرأه ما يخبط بسواه يا جميلا ينسط يا سل بلادي والحباد سليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفها إليك سهي بردا يرتفها يا ربنا سل وسلم سرمدا على كريم كله قد مدى سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا سسمان وآله وصحبه والتجلي سنزم خارقا بينجحل يا من أمرت سوي الإيمان كلهما بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبلن صلاة قد لفظت بها نسما لوجهك يا من قد ما كزلي فاقبل نسامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الحمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وغد بغير أناء لي به أمل اذكر بفضلك سعي وردي النبي يا من به سرت زاهد ولم أمل أنت الكريم الذي أبقي تكرمها يا خير آل أتاني أفضل سبل كل بجاي رسول الله مالكنا الذي خير صلاة منك أن خبلي وارفع لسامي ساجودا وتكريمة ولا تردنه يا مصيب الخلال ثم النظام إلى سيسها بخدا ولا تردنه يا مصيب الخلال سواك لم أرجو في سر وفي علان بحق وجهك حقق للرجاء لي يا رب كن لي وغر لي برضا خلدي وما التمست بجيش المنتقى لي سل وسلم على المختار في الكرماء وبصرن بنسمي أفضل الرسل نفاني نافي نفا جسبا لي قلب كل فائز فانجسبا نابت كتابتي عن النوافل ولا أراح للردى بخافلي نابت كتابتي لدى الله الجميل عن الحبادات وعنه لا تميل نابت كتابتي عن السلاح والجولان لسوي الصلاح نابت كتابتي عن المدافع بفضل رب كان لي بالنافخ نابت كتابتي عن الختال وسيسها الدري إلى أغتالي نابت كتابتي لدى أهل الكتاب هني سيوفي ورماه لا يتاب من حلي الله بتعليمي وجاهلا أهدي وسع علومي أكتب ناقلا من الله ومن خلمي وفي عروفي لم أمن يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم خاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما زبي المصيب تابي سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته وصورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا سفيهنا المقدم عند الذي تذكر لدي قدمي محمد وسيلتي وجنتي هن الأهادي والأسى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من سلهام خدمة تصر مصطفى بي كفيت ما زر خطرمت من رب البرايا خدمه limal bi jaayi kawaani sadma ahmaduhu ala xurujin min darar wa kullu suin wa hanain wa qarar askuruhu sudran yajuru sayda bisrin wala yajur nahwi kayda hamdan wa sugran la sama burura rabbil wara wa sasa khurura fa qumtu nasiman lisul muqaddama musalliyan biha ala man qaddama مرتجيا كوني خديما أسنى والأفوز بالمخر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع الذي يريد أن ينتفها جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصفى نسما مباركا يخي الأصابا كم الذي كابدني أصابا أرجوسة هابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراقب كاجل كاجل لراقب قد انصرفت للمراد قائلا ما زباي بايتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون هل النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كلها بيديك حبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulilahi rabbil alamin addi borom Touba sant Serigne Touba rek di doolee ñaan Serigne Saliou sunu borom yàgg doole ay leeram te taas ñu ci barkeem te xam ne bis bi moom bis la boo xam ne ku fi ñëw rek sa xol yëg na sëñ tubaa te loolu rek a am solo kon yàlla na ko yàlla gën a doolee dimbalee ci barkeb xasida yi ndax lépp dimbalul sëñ tubaa la ndax lii jafe na lool kon ku ko am war nga ko fonk yàlla na ci sëriñ bu gën a saxal te defal na ci taw feexi sëriñ tubaa yoo xam ne duñ taxalitoo ko moom ba faw barkeb xasida yi jërëjëf. bis de sëñ Modou ñoo lay siyaar bu baax a baax di sant bu baax di ñaan saahibul fadila sëriñ Saliou Mbacké suñu borom yokk ay leeram te taas ci barkeem. barke Borom Touba Mbacke bis moom képp ku fi ñëw rek gis ngay ta bopp ndax alxuraan a xasida xasida yi baatub laa ilaaha illallah murid taarix yi ñëpp nga fi teew yéen ñi di journalité di rafetal liggéey bi di ko yaatal ñoo leen siyaar bu baax tey rafetlu teewaayu murid yi ñëpp ku fi teew yàlla na suñu borom fajala say aaju sahir ak baatin te yéen waa euh, journalité Istikhama ñoo leen siyaar bu baax tey rafetlu seenub liggéey ci jotaayu murid yi ci jotaayu kuréelu xasida yi gis nañ yaata bi ngeen yaata liggéey bi gis nañ jàpp ngeen jàpp ci xasida yi Sëriñ Tuubaa yàlla nañ Sëriñ Tuubaa defal jàmm ci barke habli tiqaama xinil malaama hablil karaama bitiliwaay barke borom Touba jërë ngeen jëf aouzu billahi min asheytaan rajim wa inni u'aysuha bika wa surtaha min asheytaan rajim rabbi aouzu bika min shaari shayaati wa aouzu bika rabbi yahdurun bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba wa farrahum abadan bi haasihi almuqaddamati wa adxili surura alayhi sallallahu taala alayhi wa biha abadan wanfa biha kulla man ahabbaha wa kulla maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di am mbégte mu rëy sunu digganteeg borom Touba ci teew gii nga xamante ni teew nañ ko fii ci biir mat la bu Matlabul Fawzayni nga xam ne bu doon wax naan lan mooy xolab Touba dan naan tey jii ñoo ngi ci diggu xolab Touba nga xamante ni euh, ak sant borom Touba mënta weesu loolu mënu ko jéggi bis bi it wax nañ ni ci la borom Touba sancoon Touba ci sahir loolu lépp di ak sant borom Touba. waaye murit daf maa laaj ni ma waxal loo yëg ci bis bi waaye bis bi moom lenn dong laa ci yége muy xasida xasida rek laa yëg ci bis bi. bis bi ñoom xasida rek lañ ci yége borom bis bi it muy Serigne Saliou dafa mas a woo dong yi benn bis ban ñëw muy leen mbaa yéen a ngi jàng xasida mba dem ak yéen yéen a ngi jàng xasida ñu ne ko mbàkkee ñun daa mel ni alquran rek la ñuy jàng mu leen dee leen jàngale xasida ndax juróomi at yi ma toll de fu borom Tuubaa àggoon naa waaye li ma bëgg ci yéen xasida ma ko dàq li ma bëgg ci yéen xasida ma ko dàq Cheikh Moudou Moustapha Mbacke dafa bëggoon xasida ak jël maraaxib bëggoon na ko bëgg goo xam ne da ko daan bind daan ko jox ku tedd ki di ko jàngal ku tedd ki nee na ku tedd ki woo ko ba mu ñëw mu ne ko Moudou Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ko xasida gi di jël maraaxib de def naa ci loo xam ne képp ku taxoo man lamay def ci moom bu taxoo xasida xasida gi dina ko def ci moom kon loolu dama doon misaal rek. ci ni ko borom Tuubaa doon waxee naan yow mi tàgg Rasulullah sa bul ta fàtte saxaaba yi moo tax maanaam hmm, ginnaaw bu ñu waxee suñu waxee kat ba noppi daal di koy daanoo nak ci waa kër Sëñ Tuubaa ñi kon dinañ daan waaye nag lu ñu wax dañ naan la borom Tuubaa nee na ah ah maanaam Sëñ Mudu Mustafaa nee na Sëñ Fallu nee na loolu rek noonu rek laa ko mën di waxee noonu waaye ñun daal nan jàppaat borom Tuubaa te bañ ko boole dara waaye bis bi daal moom xasida la waaw am na ñu nekk ci biir xolab Tuubaa ah am ñu ba Ndar ñeneen ñu jóge ba Thiès ñeneen jóge feneen ba ñëw fe te ci bis bi te am na nekk fii ci biir Touba Mosquée te xamuñu ne bis bi am na waaw kon fii moom ku fi dugg Sëñ Touba moo la fi dugal tey kon na ku fi dugg ku nekk bu la neexee say aajo dina faju bu la naqaree say aajo say aajo dina faju waaw fii Serigne Saliou mi daan nettali fii lañu doon nettalee ne fii la njaay àll ga ah gaynde ga doon dàq njaay àll ga mooy fii ñu toog waaw kon nan nan santaat borom Touba bu baax waaye nan jàppaat borom Touba bañ koo booleeg dara borom Touba rek borom Touba dong borom Touba xisse waaleykum salaam wa ci ginnaawam bi di ñaanal Serigne Cheikh mii di jawriñu barab ak ñi mu bokkal Serigne bi. ak ñi mu bokkal Serigne Touba. ak ñi taalibey Serigne Touba. ak ñi kuy dëkkandoo. ak nga dib soppe. noo ngi ñaan ñaan gii mi bëgg ñaan nga dugg ci biir. nag nee na. Serigne Thierno nag nee na. ngi ñaan. mi ngi ñaan. bis bii. bis ñu teewaat ko fi déwén ak jàmm. ñu teewaat ko fi déwén ak jàmm. ba defee ko nii nu ko defe te kenn ku ne. kenn ku ne. ci sa bopp. ci sa bopp. ak yokkute. ci wàllu pas-pas ci wàllu diine ci wàllu zahir ak ci baatin sant na ñëpp nee na sant na ñëpp daal ci cantuk Serigne Cheikh mu sëñ Saliou kon kon fu fi waay toll na tàllal ay loxoom Serigne Thierno ñaan ñu yeewiku ba dajewaat fi déwén ak jàmm kenn ku ne sa biir ak yu biti ba daj ni Serigne Touba ak Cheikh Saliou fajal na la ko. nga lamb ba ni Serigne Touba ak Cheikh Saliou fajal na la ko. kon fu ay toll na tàllal loxoom tey wax amiin. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين وهم لنا كل شيء سليم سيئا وعيسى كل شيء طول لنا عمرنا وحرنا أبدنا وهب لنا سعادة الدارين يا رب وقبلنا وكن لنا المرسلين على النبي والسلام آمين يا رب العالمين الحمد لله الكريم سلمنا على سوالي بفرد